ci ànd gi nga xam yéen koy ànd ak ñun suñu émission yaru ak yare tey ñu ngi ci suñu numéro 14 incha allah di ko sof si suñu waxtaan wi jàll rek muy importance bi nga xam ne euh, daara am na ko ak itam ñi xam ñoom ñooy saytu daara yan comportement la ñu war a am incha allah ngir li ñuy séntu si ñoom euh, ci ay résultats ñu man ko am ñu ngi dalal tam suñu mbokk mi nga xam moom lañ ko baaxoo di dalal muy sëñ Makhtar Kébé mu Cheikh Saliou Mbacké di ko jaajëfal lu baax macha allah ci. Euh, xam-xam leer bi ak itam mën a euh, jot léegi message incha allah di ñaan borom bi taala taala sàmm ko te aar ko waaye itam yokk xam-xamam te dolli ko barke waaye di siyaar itam suñu mbokku daara suñu Omar Sylla bi nga xam ni si kanam tuuti incha allah moom mooy àndaat ak suñu Maxtaar Kebe ci émission bi nga xam ne moom mooy jëm ci booley alxuraan nekk émission boo xam tam dañu koy suivre ci àddina bépp di ko apprécier di ko rafetlu waaye itam di jaajëfal mbokk yi wax di leen wax ne ànd ak ñun suñu seen. youtube maanaam kon yaatal mbindu alxuraan na ci chaîne bi incha allah ngir lépp loo xam dugg na ci rek ñu man ko topp partagé ko ak jullit yi waaye di ci feeñal seen ay commentaire waaye di siyaar bu baax itam suñu cameraman si Moustapha Sarr mi nga xam ne toujours moom la ñuy liggéey bi tam mu si liggéey liggéey bu am solo kon sëñ Maxtaar Kebe tafadal waaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ Mbàkke Sorong maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaare di nuyu waa c 3 bopp ba di alaaj sëriñ Seck sëñ Fallou sëñ Daam di nuyu personnel bépp ci biir Ndakaaru ak li ko wër ci gox-goxaan yi waaye delluwaat di la nuyu di la ziyaare di nuyu sëriñ Omar Silla suñ xarit bi ñu war a seqal léegi ci kanam émission boole di nuyu itam sëriñ Moustapha Sarr mi nga xam ne moom itam wax dëgg taxawaayam rafet na fi lool te aw yoon di nuyu it bokki daara yi ñu ko seqal ndax liñ bëgg a toog waxtaane ko dañoo bëgg njariñ li delluwaat ci ñëpp. waaw di jaajëfal bu baax sëñ Maxtaar si leeral yu am solo yi xam naa suñu numéro fukk ak ñett bi jeex dañoo tolloon ci euh, fii Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu anhu doon misaal ci dóor ki ko sañ ak ki ko sañut waaye itam ñu rappelé mbokk yi bu baax te xam ne jàngale ak dóor ñoo ànd waaye nag naka lay demee ak bu ñu si àggee nan la war a nan la war a toll ba tax xale bi ñaare du. xelam du dem du yi tey li nga bëgg mën nga ko si am waaye jàng moom ñaari boo ko si génnee eh, dana jafe lool parce que xale yi bokkuñu nu ñu leen di orienté. Mm-hmm. waaye tam mu nekk loo xam heure jóg rek eh, na am sabab bu ko bu ko bu ko tax a jóg ndax li si li li si li li wér ba wér mooy ñaari li si ëpp ki opté ni day jàngale bu demee bay dóor rek xamal ne xale bi dafa am lu muy séentu si moom eh, te amu ko mu defe ni jëfandikoo yar bi mooy tax loolu jàppandi. Mm-hmm. ci tolluwaay yu kooka am na si koo xam moom na ni. lii tax xale bi mën a joxe ay résultats waneen yoon la bu mhm. bokk sag dóor kon nga xam ne dóor gi nekkul loo xam ne lu ñuy lu ñuy lu ñuy balaame la ba ñaare ku ko def ñu loolu crime la mhm. waaye nan lay toll ak fan nga koy sañee ak ñu ko mënee wattandiku nan lañ ko wattandiku léeg-léeg gis nit koo xam ne moom nee na ci ci expérience bi ko yàlla may bu demee bay jàngal ab xale ba nar koo dóor nee na bu yëkkatee yar bi dafay yedd boppam ba xam est-ce que kii moo ko dóoree maa ko tooñ wala que waxal naa ko bindam ni ma ko ko war a waxale est-ce que bi ma ko waree soññ mu jàng soññ naa ko nee na bu boolee est-ce que yooyu yëpp day mujj day jëlaat yar bi teg suuf parce que moom day mujj tumaal boppam mm-hmm. waaye nag loolu ko ne xam na ni ak ak tey lay laaj ak ndànkal lay laaj kon loolu suñu waxtaan noonu ñu si dikkale sof ko ci suñu émission bi jàll jërëjëf euh, sëriñ Mbàkke jërëjëf euh, mbokk yi ñuy teewlu xam naa benn waxkat waxoon na ne laa na ala al-ghilmaani in duribu fa darbu yafna wa yabqa al wal adabu macha buñ dóoree gone door yu normal yu réglé bu ca indi njàq rekk ay jafe-jafe bu ëllëgatee day mujj naan masoon nañ maa dóor waaye da cay teg ne boroom xam-xam laa fa darbu yafna wa yabqa al ilmu wal adab kon masoon nañ maa dóor mooy faddar bu yaf naa hmm. wa yabqa al ilmu wal adab mu teg baaraamam ne ci borom xam-xam yi laa bokk nga xam hmm. kon dóor gi am na njëriñ da ko koy fàtte dóor gi kenn mënatu koo xam kenn mënatu koo xam waaye day fekk itam booba dañuy ñëw ci dóor yi dóor gi mel ni loolu Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu anhu daf daan wax naan kuy jàngale mënoo ñàkk a dóor hmm. waaye dóor ya di woyof tey sore te la ca ëpp di xëbal nee na doy na ca loolu mi ngi ko mayoon jàngalekat bi ki jàngalewul nag loo mën a doon ci daara ji ak pouvoir boo fi ma a yor boo fi dóoree gone day fayu wala ñu jël ci sa yére jox ko hmm. danaan la day fayu bu fekkee da koo mag ba mu ëpp nga dem ci sa gaal tànn fa dafa gën a rafet yët sëñ jox sañ bi sañ bi jox ko xale bi muy ndàmpaay fidiya hmm. noonu dox na ci diir bu yàgg am na boo xam ne nag moo ci gën a garaaw dafa am daayira bu rëy bu jógewoon woon ñëw ca daara ja yendu ji fa xale bi seet si rek sëñ bi dégg yoox yi rek génn xam nga sëñ moom xase ba dégg yoox yi gone dootu xamat day ànd ak tàngoor mm. bi mu ko wala ba mu ñëw mu ne ko ku la mu ne ko diw te diw moom kat mooy jëwrinam mu ah, mooy jëwrinam jëwrin xale bi maanaam c'est-à-dire bu ñu jëwrin mooy moo koy yóbbu ca tool moo koy mm. néegam lay nekk néegam lay nekk ci daram lay añ mm-hmm. kon a wax mooy forme bi nga xam ne kooku yilif na ko du moroomam moom doon xeexal wala dara mm. bi waa ji dikkee sëñ bi daf ko ne sëggal ko tàngoor mu sëgg xale bi daal di delluwaat te ginnaaw fay yu ba xolam sedd waa daayira bépp di xool ndax sëñ bi bu du xoolate ñi fi nekk ak kan ak kan mais duur gone moo ko toll foofu moo tax mu daan wax naan kon jàngalekat yi ñoo sañ a kus ci dóor waaye ñoom itam nañ xam ne seenu dóor nañ xam ne dañoo nekk ci toolub jihaad kuy jàngale yaa kuy jihaad yi yéen a yem saa yoo dóoree daw nga te bokk na ci kabaa'iru sayyi'aat bakkaar yi gën a mag daw ci toolu xare hmm. loolu yi tiit loo jàngale kat yi bañ xam ne kon dóor amul njariñ nga xam loolu dañu koy wax si min baabi maam tarhib leen maam tiital leen ah. ba ñu xam ne buñ demee bay dóor itam ah. ndax ku dem ban la dóor jàngale jihaad la ah. boo te te jihaad kenn du ca daw te boo dóoree daw nga te boo kon dèjà boo dóoree am na bakkaar bu mag ci kabaayir la bokk waaw yu mag yi foofu kay moom a taxaw seetlu hmm. kon xale bi ngay bëgg a dóor am na ci ñoo xam ne boo leen dóoree seeni fit day dem am na ñoo xam ne ci teey lañ mën a mokkal ak ak teewlu bu ci dara desul lu yooxu ŋàlli ko ca kaw seen seeni mémoire dootul enregistré lootu jàppati léegi nag mën nañoo nekk nag def ay ak li nga bëgg waaye du mas a mokk hmm. am na ñoo xam ne seeni bët ay jàng xool araf bi fi mu ne baat bi fi mu toll buñ ci naree gàtt xam ne baat bu boobu moo jeexal man fii ma toog nii téere ba ma jàngee woon sañ jëmb ba soo ko andi teg ko fii léegi ma jox dama naan la baat sànga ma njëkk ci bopp bi baat sànga may joxoñ bi rëyal gi mu rëyal di robon wala mu rëyal ko muy nisib wala muy nire ku muy xisib mi ngi toll barab sàngam li ko waral mooy maam ni nga koy xam ak ro roaat yooyu yëpp rek subhaanal hayyi baax na jërëjëf <laughs> léegi gone gi nga xam ne day jàng ci teewlu nga xam ne boo ko gëddee fit wi day dem nit aw fitam bu demee dootu nit ko ay yan comme mënti doon bu fitu demee dootul nit bu fekkee da ndax gis nga gone gi xool téere bi di xool yar bi bi nga koy bëgg a dóor baat bi kawe mais gisatul baat bi ndax yar bi lay xool. yar bi lay gis waaw. bi ci des boo doon wokkut sax nga gis ku mu ne bërit daw koo xam nga ne xaala nafsiyaam xayru mustaqirra maanaam état am état de santé am sax normalatul lu mel noonu sax boo demee ci américain yi dañuy bañ ku tëgal gone. li ko waral mooy dañu dañ faa mës a tëgal gone gone nga yore cardiaque bi mu ne dellu siwaatul bi ko docteur yi seetee xam ne xale bi daa am cardiaque ñu interdit ko ci loi Amérique ne kenn du fa tëgal gone ndax xamuñu ko am cardiaque xamuñu ko amul cardiaque kon boo yoree ay gone yu bari téeméer wala ñeen fukk wala juróom fukk am na ci ñoo xam ne cardiaque lañu yor boo xàccee yaram foofu ñuy téenee naan <gasps> boo sàggaree seenu seenu naw du dellu si kon xëble rek daa am nañ koy defee nga xam ne kon xalqa xalqa laaj na expérience de maanaam ay gone leen jàngal yow nekkul nekkul ci ak mokkal rek de maa nga xam mustawa nit ñi sa bët bii fekk mi ngi dal ci gone gi nga fexe ba d'ici une heure xale bi fowut hmm. mi ngi jàng normal te loolu nag doo manipuler téléphone doo bindantu lu amul njariñ hmm. jàngalekat day ne yakunu ala bayyinatin min amrihi hmm. da ngay xam li ngay def lan la am na gone goo xam ne fii ne li mu bëgg mooy toog ci sa wet gii su ko defee nga jàkkaarloo ñee moom mu des fa benn ma nga naan da jax di nelaw am na ay borom nelaw mu bëgg a fay benn wala sax mu am mu nga gis ko muy cokkasante ak moromam di ko sànni dara fab jukki bi kal ko nga xam ne yow jukki bi day mel ni <laughs> di defante la muy defante wala muy làqatu ci ginnaaw kenn ko ñëw doo ko ah, seen bañ bañ nga seen ko ba ban koy wax kaay tari mm-hmm. nit ki bala ngaa dóor nit ki boo ko ne kaay tari nga xam ba xam mokkal naam gis nga nit koo ne kaay tari mu guddal yoon wa lool te mënoon a jéggat kenn rek. ak si ci yow <laughs> xamal ni mokkul jëru nga naan ko kaay tari da nga ko nar a dóor mais foofu tam da ngay gis ñoo xam ne dañuy def parce que yow bu la wóoree ne bi ngeen nekkee xalq bi jàngul bu dee jàngalkat mel ni Sëñ Mbàkke da koy tëkku da nga yow xaaral ba tari jot. waaw nga xam ne yow léegi waa soo ñëw ko. waaw yaa ngi ko bàyyi si boppam tari jot nga ne ko kaay tari. Hmm. léegi dèjà li si ñëw di si li di wax léegi yow dèjà commencé nga am problème ndax bi mu di jotee fi yow commencé na war a wàcce foofu ngay commencé nekk ak xale bi nag léegi si diggante dóor du tari si diggante kër kër bu ko mu yàqal la sa noppalu te moom du tari nga xam ne yow la ko war a mooy bi nga waree taxaw moom nga hmm. taxawul hmm. mu mel ni kon yooyu yëpp mat nañ bàyyi xel ndax boo xoolee dóor googu ku si mel ni day nga Anas ibnu Maalik li mu nettali si yoon bi alayhi hmm, nekk na si këram liggéey lu tolloo fukki at ak nangam waaw yoon bi sallallahu alayhi koo dóor mosu koo gëdd te moom mooy modèle bi. mosu ko ne lu tax nga def lii lu tax néew lu tax nga def lii. xam ne kon kooku dalay lay wóor ni la. ana si ak mbaaxam yaa na a faa def loo xam xëy na mën naa bañ a doon noonu. waaw waaye si ubbeeku dënn gi ak mm-hmm. sut gum ko sut. ak mm-hmm. muñ gum ak muñ gum ko mën a muñal. Mm-hmm. moo tax mu bàyyi ko fa tey jii ba mu mën a solo ay xaddis yu bari nekkoon si këram di liggéey ba man faa nettali nettali bu mel nii. te nag lépp day jeex nag. day jeex waaw lépp day jeex xam nga ko su mel ni sëñ Saliou mi ni jël misaal. Eh, yàgg ngaa dégg si daara mu ni xam ne garab si kaw lay fekkante xale bi mën nga koo tiim di koy jàng fekk moo la ëpp ay may ci suñu borom tabaaraka taala yàlla dafa dogal nga jiitu ko ci ay at waaye fi mu ne si kanam tuuti di xam ne moo la ëpp ëpp cër si yàlla mën na laa man na laa ëpp taxawee ndam ci àddina ak alaxira te yow jamono bi nga koy jàngal xamoo ko léegi nag expérience yooyu yëpp nag boo ko boolewul hmm. dana waral ñaari te di mën a am si si diggante ak jàngale kaay ci lu wér ci lu wér ci lu mu mel ni itam ci ci ci ci ci ci ci dóor yooyu nga xam yaa ngi kiy joxe misaal. ku si mel ni Cheikh Saliou. Mhm. waaw daa mel ni yëmul woon ci loolu la ci yittewoo ci xale bi noonu la daa sonne ci diggante seen tëdduwaay ak li ñuy lekk ak ni ñuy naanee. Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu la jox ñaar ay lal li ñu tuddee ay lal ay million la ci daan jox ñu daajal ko gone yi. te yaakaar naa jàngalekat lañ ca xam mooy na gone na góor si indi ab mat la indi ak gaal. daas na ko daas na ko sart moom nag yëpp moo la koy defal ay lal rek da daan xëy wut ay menuisier yi menuisier yi ci tubaay yëpp dañuy dem yenn ji ca daara di daaj ba ngoon ngokk bi ci des café ak suukar ak attaaya ak suukar du benn ci kër Sëñ Saaliw na lim ci jublu mooy mas nañu ko wax sax ne sa law attaaya jii ma leen di xellil ngeen di ko naan jublu ma ci bànneex waaye dama cee jublu roy ci Sëriñ Tuubaa na nga ko daan defee ñu mel ne yéen waaye nee na gone gi bu xëyee naan atta café nee da koy yee day yee dafa am nabaa xaqliya mm-hmm. sa xel lay yee mm-hmm. daara yëpp fukki daara ak ñaar yi kenn ku ne da ngay taal sa kafe soo nappee nag bu ñu koy xel yi nag danañ jaxasoo noonu kenn ku ne may sa moroom mm-hmm. foofu ak sadaqa amoon na fi ak xaritoo am na organisation daal am na nizaam daal waaw bu nizaam bu am bu am solo noonu la koy defee ci wàllu col mi day xëy waa fëgg jaay yanoo fa ay fëgg jaay yu dul jeex andi ko ñi jaay ay dàll indi ay dàll nga xam ne daara gi dañu xëy di séddale mu mel ne ñëpp xale yëpp dañuy beeg raay beeg raay ci olof mooy dañuy beeg seenu lekk ak seenu naan daf ko daan contrôler boppam maa ngi fàttali ko jan jàppandal ñëw na fa tibbulu ca wattu sa cere ak ñeex ngoon sëñ Saliou Mbàkke ak tedd ngam la di mos cere ji ci digg ëtt bi ba noppee la joxe lekkiin bi ma ma doon nettali ca émission yële altine dañoo war a def laax ak diwu tiir suñ defee laax ak diwu nag bu ngoon nañ def ñeex mu yem bu talaataa ñu def ñeexum rëndaay joxe day am keccax géej gi ak eh, gerte gu bare bari bu àllarbaa ñu def eh, ñu ñu yeesalaat eh, tiir gi bu alxames ñu togg ceeb ceebu géej gi bu am bu bari keccax ndax nee na kecc lu ki nekk da ko daan tudd la muy jariñ ca nit ka buñ demee ba ajjuma ñu defaat euh, ci ceebu euh, yàpp ndawal bi mu ko waxee ba noppi dana nii bu ñu ko doxee doxee xale yi li ñu tuddee bémpéen muy bu jant bi soo seeni bët di naqari wala ñuy am ay infec infection fii di infecté wu hmm. wala ñuy miir di di perte conscience. nee na lii lekkam yii mu joxe yépp da koy dindi. Hmm. bi mu waxee loolu ci daara ji docteur Fall moo fa ñëw ñu jox ko li ñuy dundee dafa jooy ne Sëñ Saal dafa dem médecine hmm. te boobu mooy docteur ba nekkoon ndal gu mag hmm. kon nekkul rek ne da ngay jël gone rek. bal ko ca daara ja rek mu dem jàngi rek nekkul daal leen fa andi noonu rek mu nekk lu jaxasoo. déedéet déedéet ni seen man si yan. déedéet kenn xale wuti nekk fàtte gu ñuy fàtte. sëñ bi da koy jub képp mu ne demal euh, raggu ji raggu lañ ko daan wax demal raggu ji nga dem sangu mu a demal ca sa gaal ga nga sol lu set nga xam ne nanguwul kenn taq kenn ndax dafa dafa bokk ci liy neexal am xel hmm, set gi yaram woon naay fii fi ne boo xëyee xëppoo ndox da nga mën lu ëpp bi nga xëppoogul ndox ci saasi duubul bi waaw duubul bi soo xëyee sol lu set su mil sa sa sa chemise de nuit bi nga fanaanoon da ngay yëg beneen odeur buy jollee ci yow yooyu yëpp dafay jëf ci xel mi xelum nit ki vitamine day tax muy gaaw a fàtte ñàkk vitamine di miir day tax du mën a concentré du man a tërkiis du mën a toog lu yàgg niki noonu nag la léppam mel bu dee dafa sanguwut wala mu am ay góom yuñ fajut di wokkatu nga xam ne fu mu toll mi ngi wokk jamono yi muy wokk na xam ne jàngul dara ñu ci bari gis nga ñaari gone gu mel noonu lay wax waaye tudd benn baat mooy wokkatu ak a gestu kon nag stabilité am raaxa sa sa yaram dal sa yaram wér. al aqlu salim fil jismi salim fil jismi salim. Mm, sam xel yow dana tax nga mën a mokkal boo ci noppee ci yii ñu wax nag ba yépp baax nga xam ne waajal nañ barab bi ngay nekk mu set yëre yi nga sol set na sa der bi sa yaram bi set na. il faut que sa xel mi set lenn rek la dese muy sëñ daara bu set sëñ daara bi nag bu fekkee def na waru foofu mm. xam ne moom mooy bàyyi ñaareel ci yow. bàyyi bi la juróon ak bàyyi bi lay xamal ñaari bàyyi la. soxnaam di ñaareelu yaay yaay ji la juróon ak yaay ji nga xam ne moo lay toggal ak a fóotal te leen dara mooy ñaareelu yaayam. su yii dajee ci nit. gone gi da nga ko fekk muy koo xam ne day bég day mën a jàng day sawar. suñ daara ab gone wuru koo ragal. daf ko war a def xarit bu njëkk daara yi nga xam ne dafa amoon xasaawa. bu sëñ daara bi daan daan ñëw mooy ñagas mooy ñagas moom ñàkk yërmande waaw firi firi firi firi jooju wala keppet keppeti dàllam bu ko gën a yéegee dañuy mel ni ay fërëdër ñëpp ay daw adduna tukki na waaw loolu baaxut sëñ Mbàkke macha allah kon loolu moom mooy loo xam ni euh, nit ñi war nañ koy bàyyi xel nga xam léegi euh, ci niñ koy waxee jàngalekat bu ne wala mudir bu ne dafay taxaw xool mbubb moomu nga xam ne moom la Cheikh Saliou Mbacké soloon rek mu jéem a xool nu mu ko abbee ak donte nag lu mu lu mu lu mu lu mu lu mu jafe-jafe parce que loolu mooy tax li nga bëgg a liggéey ci xale yi eh, nga mën koo liggéey te ndax dafa mel ni programme bii nga wax itam hmm. mayoon na ko ci bu fekkee nekkoon nga daara jo surtout jamono liggéey dangay gis ni waxtu jàng wi mën naa bañ a bari lool daanaka buñ julee la ñuy jàng bu naajee ñu dem tool hmm. te dangay gis ni maanaam xale bi ubbeeku googu muy ubbeeku hmm. du tiit xalem dal ci ci diggante yu gàtt yooyu si la ñuy mokkale alxuraan si la ñuy bind ay kaamil si la amee xam-xam bu dul jeex bu la waxee waxtu yu yi ñuy jàng aw xam-xam ni muy baree dalay sax dafa lay sax jaaxal lu kii eh, xam nga programme bi ñu waxoon rek rek moo ci am solo te lépp programme bi lay doon il moom programme am daal programme rek moo ci am solo fi ne jàng fajar diggante cinq heures six heures sept nga dem toog sept heures huit heures neuf heures dix heures onze heures midi une heure ngay wàcc deux heures trois heures quatre heures nga delluwaat ci tool yi 18 heures ngay waaj 19 heures 20 heures nga jàng 21 heures nga dem tëri. nga xam daanaka journée boo xoolee 3 heures de temps wala 4 heures de temps. 4 teewul nag maam kaang yi ngay dégg yëpp ci diggante yooyu lañ jàngee. waaw da gis koo xam ne euh, lépp rek nit ki boo ko bàyyee boo ko mayee muux la battement mu am ci boppam li mu ci war a am lu mu enregistré du rëcc. Hmm. li bon nga ñettamal ko ñettamal ko mooy nga teg ko par ba moom sax bu doon jàng danaan man de bala maa jukki bay miin sama bind bi sax des na ma ko tare loolu dóor ma ci bu may bëgg a dee mm-hmm. loolaa fa amut waral na diggante bu gàtt nga gis ko ne la mokkal naa sumun tare naa ko bind naa ko bopp naa ko toppal nañ ma ko dara yàquwu ca mm-hmm. ci bi ci boo xam ne quarante minutes jëm une heure de temps la gën jaay yàgg mm-hmm. sëñ Bàkki nga gis ko war a bind nisif dem raxas ëlloom rapidement mu bind nisif si maas ko ci moyen de trente minutes quarante minutes lu ko may kenn tiitalu ko kenn xoqatalu ko ragalu fi kenn mi ngi def ak teeyub bakkanam gis nga baatu teeyub bakkan bakkan bu téeyut xel du teey ah, sañ bàkke ñoo communiqué feeg nit kaa ngi fér-féri feeg nit kaa ngi ragal feeg nit kaa ngi tiit lépp lu mu def yàlla dogal mu baax waaye loolu wërta baax chauffeur bii dawal feeg mi ngi mel noonu dara am du baax ki yore am machine buy tourner dara ak lu mu mën a tourner feeg ma ngay tëf tëfi daraam du baax ki yor ay ordinateur di bës ay bouton loxoom yi tàmm ko mm-hmm. li feeg mi ngi firfiri daraam du baax rawatina nag ki nga xam ne dafa bëgg a mémoriser il faut tuma andi na dal gi am pare dal ah. yi war yëg-yëgam yi war a ubbeeku yëpp ubbeeku mm-hmm. su boobaa loolu dugal ko enregistré sëñ sax dafa daan wax naan boo dooree boo ko dooree nii ba mu wóor ko ne jooy na mm. xam nga di <laughs> sëñ Saliou Mbacke keneen la xaaral ma mosal la foofu tuuti sëñ Mbacke da nga daan jàngale ba yàgg nga ges sab dong rek dekk te dem na ci sëñ ba te buy dem day teg ël kii bi rek wéy su demee toog xolam ne ko sëñ bi def du ko di xam nga fi ko ne bu fu mu jëm waaw day jaaxle waaw ab làqatukaay mal jaa la man jaa la làqatukaay la muccukaay bu dikkee da koy toogloo yow boo sàgganee keroog bind boobu du mokk sëñ da ko fay toogloo nekk ak moom ci yeneen may ko mburu wala mu xel ko attaaye yow nga xam ne doon xisaab sëñ bi di sawaab <laughs> ma sabtaana baa ma bay na xiqaabi wa maa yaa ngi doon bëggal moom mi ngay sëñ baa ngi koy fay koy fay bu nekkee ci bu nekkee ci kër sëñ bi nga xam ne loolu occasion la bi du jàng mhm. dana fa naan wala mu lekk fa wala mu am fa pomam wala dara lu neex loo xam ne nii yow yow mi sëñ bi sax amoo ko bu noppee doon la demal wool ma ko xoolal ma loolu xale bi dal na mu ñëw ne kay wuy sëñ bi ah, nga jóg toog nga ah, bi waaw nga sëñ bi nga ñëw jub sëñ bi sëñ bi daal génn ci yooyu yëpp toog wax ak yow ci yeneen donga baa ngi toog naka njàng mi ah góor waay yéen a ngi ci ba kaag mu eh, kii de eh, waxal li nga waxoon mu ne damaa dóor xolama xolama li may donga bi damaa dóor mu ne ah, wax lu ko waral mu ko ah, mbakke li tax ma dóor ko damay man damaa wax wax ba mënuma ci dara sëñ ne ko boo dee na da ngay jàng ku jàngul dañ lay dóor demal ci sa ëllëg demal jàngi. bu xale bi dee mu ne ko mu leen nag ah dóor nag baaxul. xoolal bi xikma te loolu tey loolu bu ko ko waxoon si kanamu xale bi xale bi dootul jàng déedéet dootu jàng mu ne ko demal jàngi nag ku jàngul lay dóor dem aci demal demal mu dem mu dane nag watundikul dóor yi jihaat ak jàngale ñoo yam comme ni ko waxee am na benn sax mu wax ci beneen xekk ma bu gën a neex nee na kiy jàngale alxuraan daa nekk ci biir néegu yàlla kiy jàngale xam-xam daa nekk ci bitim néeg bi di tegtal nit ñi leen dugg leen ci biir yàllaa ngi ci biir nee na ñoo ñooñu ni mu amee différence maam kiy jàngale moo nekk ci biir. néegu yàlla nee booy jàngale alxuraan na jàpp ne yow yaa yàlla yéen a nekk ci biir chambre bi. ci biir néeg bi hmm, ndax ndax daraja mën a rëy loolu. kii jàngale xam-xam na ne daa nekk ci bitti di tegtal li ngi neen yàllaa ngi ci biir néeg bi kon yow. mais loolu mais loolu boo ko teewloo boo teewloo ne xalqa bi nga nekk yaa yàllaa fi nekk. Ah, foofu foofu moom foofu di liggéey bay bëgg a dala koy yedde ne la boo demee toog na nga xam ne yaa yàlla yow yaa ngi ci biir néegu yàlla boo toogee di jàng xam-xam na mbaa nga koy jàngale da ngaa nekk ci biti di tegtal nii nii neen yàlla nga ci biir néeg bi macha allah nga xam ne kenn ku ne si ñaar ñooñ ci am nga liggéey bu rëy gën mooy ki nekk yàlla ci biir néeg nekk yàlla jàngalekat xam-xam li muy rëy rëy tegtale képp lay def na yàlla nga ci biir néeg waaye egsiwul foofu mhm. daa dina kon nag alxuraan amul dara lu ko kawe yow mi koy jàngee amul kenn ku la gën a kawe ndax kilifa gi gën a rëy yaa ngi moom ci biir néeg bi allahu akbar nee na kon boo toogee na nga teewlu bu baax li ngay def yaakaar naa képp ku xam ne yaa ngi jàngale alxuraan mu wóor na la fi nga nekk ci yaa ngi ci biir néegu yàlla da nga sàng sàmmoon tekki teggin da nga indi yërmande hmm. doo fa mel ne gaynde hmm. bu gisu rëbb macha allah salaamaaleykum te itam foofu la ñuy jaaxale sax yërmande jooju suñu borom bi tabaaraka taala bi muy jàngale alquranul karim tur yëpp la fi bàyyee waaye arrahman la jël hmm. arrahman allama alquran kon nga xam nekk nit ki pour nga jàngal ko il faut que yërmande da ngay dell ak yërmande doo ko doo ko jël message bi def ko si moom te mbokk yi loolu ab bind la boo xam ni képp ku jàngale alxuraan sa bind la boo toogee sa xalqa jàngale jàppal ne yàgg suñu borom tabaaraka wa taala yéen a dëkk te mooy ahlul quraan hum ahlu la wa xaasatuhu xayrukum man taallama alquran wa allamahu parce que dañuy wax ne loolu ay hadis yu gàtt la waaye nag maanaam yi nag boo ko doon tas Cheikh Makhtar mu yaatu la xam naa foofu la ñuy wàcce suñu kàddu sax jox la nga résumé ñu ñaari hadis yooyu nga xam ne yonent bi wax ne wax ne ki gën si yéen mooy ki jàng alquran al ba noppi di ko jàngale xam nga lu mu ci noonu hmm. xayree bi waaw xayree bi ko waral hmm. dafa sonn ñaari yoon taallama alquran jàng na ko jaaniban hmm. wa allama alquran jaaniban ba muy jàngi alxuraan am na xayri yëpp ku jàng alxuraan mais xayri boobu mën naa nekk bu limité bi mu tourné waatee nag ràngu di ko jàngale moo tax moom dafa ja gis nga àdduna ba àdduna jeex déglul beneen xayri boo dégg yonti bi wax ko ci benn yoon la xayrukum xayrukum li njaboot dong la xayru xayri yëpp alxuraan da nga koy jàngi xaw caa dee ca daara ja tawte naaj tàng la nga dox diir bu yàgg xiif mar not say bakkan ci ci ay nelaw loolu mooy xëyriya benn bi muy bi nga xam ne yaa ngi jàngi xëyriyam ñaari benn mooy bi nga toogee di ko jàngale lewet yërëm ak yeneen ak yeneen moo tax mu ne xayrukum man taallama alquran wa allamahu man taallama alquran xayrukum wa allama alquran xayrukum ñaari xayriya la boole foofu nga macha allah allah macha allah Cheikh Matar kon mbokk yi loolu mooy suñu émission yaru ak yare si numéro 14 mhm. xam nga émission bi tam li mbokk yi li ko tax a jóg dëgg-dëgg mooy euh, daara ah. nan la ñuy def ba daara stable nan la ñuy mm-hmm. def ba donga yi mën a jàng alxuraan mm-hmm. te jafe-jafe du am waaye nag di jaajëfal bu baax itam jàngalekati alxuraan yi ci mm-hmm. coono yi nga xam ñu ngi koy jànkuwanteel ci teel a jóg yi ak itam ixtiraamul waxtu bu ne la neuf heures nga war a dugg neuf heures fekk la nga toog waxtu bi nga war a gi wàcc itam yëpp ngay sàmmante moom xam ne liggéey la bu jafe boo xam ne ki nga ko séqal ay maslaha rek moo leen di si moo moo fa nekk waaye l chaque fois dëgg moom borom bi tabaaraka rek mbokk yi moom moo ko yor kon ñu ngi jaajëfal bu baax mbooleem jàngalekati alxuraan yi waaye itam di jaajëfal itam ñi xam ay mudir lañ yor daara yi di di recevoir xale yi pour ñu def si ñoom téere borom bi tabaaraka taala kenn si ñoom euh, mun ta dem bàyyi bàyyi morom ji kon ñaan rek ak déggoo gën a am waaye itam dëggu ci liggéey bi itam euh, am ndax bu xasee ba dëggu gi moom bu xasee ba am rek Euh, daray gàllankoor dutul am kon mbokk yi euh, foofu la ñuy waay wàccee suñu di leen dox di leen defal ñu ak dégg ak topp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون